prédécesseurs yi defee lu jëm ci wàllu lion yi dañu leen di encourager parce que doonte démb amuñu ndam ci match bi ñu doon def waaye li ñu mën def nañu ko ah, dañu leen di encourager di taxaw ci seen gannaaw ba match yi nga xam ne nii mooy ñëw ñu mën ci am ndam te it comme niñ ko waxee défaite ci premier match euh, bari na réew yu ko yu mu dal te teewut sori nañ ci championnat donc moo tax euh, ñu ngi leen di encourager di wax sénégalais yépp ñu nekk ci seen gannaaw jàppale leen ba nga xamante ni dinañu mën a ci match yi di ñëw ñu mën am ndam bu ñu jógee ci loolu dañuy sànni ñaari kàddu ci suñu député yi nekk assemblée assemblée nationale damay wax suñu député sax waaye xëy na Euh, du terme approprié puisque ñoom ay député askan wi lañu donte dañ leen a fal ci turu Yewwi Askan Wi mais représenté wuñ fa Yewwi Askan Wi dañ fa euh, représenté tout le peuple sénégalais période bii ñu nekk ñu ngi nekk di voter budget mu nekk ñu nekk plénière danañ ci nekk ba 9 sept 9 décembre ñu ngi leen di encourager suñu mbokk député yooyu di leen féliciter ci taxawaay bi nga xam ne nii am nañu ko foofu sa assemblée nationale parce que depuis plusieurs décennies li ñu tàmmoon gis assemblée nationale mooy benn majorité mécanique boo xamante ne nii bu ñëwee budget yi lépp dañ koy voter comme lettre à la poste du ñu am l'opposition bi du am euh, mbooloo bu bari bu mën a opposer ba nga xamante ne nii ñoom dinañ comprendre ne li ñuy def jaaduwul waaye député yi nga xam ne nii ñoo fa nekk ren donte taxawaay bi war nañ ko gën a yokk waaye ñoom it ñu ngi def li ñu mën ministre yi jaaxle nañ député Benno Bokk Yaakaar yi jaaxle nañ fi mu toll ñu ngi saaga ñu ngi xaste ñu ngi def lu ne parce que dañoo jaaxle moo tax ñuy wax suñu mbokku député yooyu ne leen bu ñu fàtte mukk mukk ne leen askan bi lañ fa toogal bu ñu mukk ne askan bi ñoom lépp lu ñuy def ci assemblée nationale nañ ci jiital intérêt askan bi ba nga xamante ne ni budget bi ma Macky sàll wax leen ñu voté ko budget la boo xam ne nii amul c'est pas un budget d'investissement budget la boo xamante ne nii mën nañ ne sax budget pré-campagne la pour 2024 donc lu mel noonu nag ñoom ku ci nekk na ci jël responsabilité am taxawal askan wi ba nga xamante ne nii li intérêt askan wi ñoom danañ ko défendre ah bu loolu weesoo nag dañu tàmm suñu tolloo ci yenn événement yi euh, dëkk bi danaan selew kenn dootul xalaat lu dul ci événement boobu mais loolu piège la gis nga ñu ngi toll ci coupe du monde coupe du monde boobu bu mu tax ba askan bi fatte ay difficulté bi coupe du monde bi bu mu tax ba politiciens yi politiciens yi sax c'est à la fois peut-être péjoratif mais les politiques ñu nekk ci société civile bi ñu bañ a fàtte combat bi nga xam ne nii moom la ñu war a mënee ngir jàppale askan bi parce que Macky Sall daf ko tàmm bu ñu tolloo ci période yi day def tout ba kenn du wax day def tout dara du am ñun nag Yewwi Askan Wi loolu la ñu xam parce que combat bi ñu xeexal xeex bi ñu ne di di xeexal askan wi amul app amul bés amul heure donc xeex la boo xamante ne ni bés bu yàlla sàkk ñu ngi ci te duñu ci jógit tant que demuñu ba am li ñu bëgg ñu ci jóg donc moom bu yaakaaree ne coupe du monde bi dafay ñëw ñun ñu toog croiser suñuy loxo bu coupe du monde bi ñu ñu ñu ñëwaat ne dañuy am lu ñuy wax nax na boppam askan wi danañ ko xeexal difficulté yi nga xam ne nii moom la askan bi di dund jamono bi xëy na euh, président Ousmane Sonko dina ci ñëw mais sénégalais yi dundatuñu sénégalais yi benn repas la ñuy am ci euh, vingt quatre heures yi loolu jaaduwul moom mi ngi ak euh, ay ministre am mi ngi ak ay njabootam ñu ngi ci seen jàmm di dund correctement te pourtant ñoom li ñuy dundee as askan wi moo ko moom. li nga xam ne nii la ñuy dundee ñoom askan wi moo ko moom ba pare taxawuñ taxawaay bu permettre askan boobu dund donc loolu moo tax xeex bi ñuy xeex amul waxtu amul ab bës bu ñu bés heure bu nekk lañ ko war a xeex heure bu nekk lañu war a xeex xeex bi beneen bi euh, soxna ay Mbodj mi ngi koy wax lu jëm ci wàllu journaliste mais moom li mu xamul moo di jàpp bi mu jàpp Pape Alé Niang tëj ko dafay wane ne Pape Alé Niang il fait très bien son travail c'est parce qu'il fait très bien son travail moo tax mu tëj ko parce qu'un journaliste d'investigation liñ koy fi koy xaare mooy fan li nga xam ne nii ah, euh, euh, euh, muy muy régime bi muy muy muy ministre muy président lépp loo xam ne nii ñu ngi koy def te méngoowul ak intéret askan wi ñoom ñu toog xalaat ci enquête yi ci vérifier ko ba pare diffuser ko boole ci sax moom ñu ngi koy taqal loo xam ne nii defu ko mais loolu yëpp dafay wane ne fi mu nekk nii président bi ñu am mooy président bi gën a impopulaire ci histoire Sénégal mooy président bi nga xam ne nii lu jëm moom c'est le président des premiers mooy président bi juddu avant indépendance après indépendance plutôt président bi nga xam ne ni lu jëm ci violer constitution Sénégal li mu ko ci defee amul benn président bu ko def mooy président bi nga xamante ni ci manipuler justice mooy président bi nga xam ne ni fi mu ci yegg amul benn président bu ko def mooy président bi nga xamante ni lu jëm ci séparation des pouvoirs le les murs de la séparation des pouvoirs mooy président bi nga xamante ni ci daaneel mur yooyu la dëkk moo nag mooy président bi nga xam ne nii moo nar a par la petite porte Abdou Diouf am na nu mu génnee président Senghor am na nu mu génnee Abdoulaye Wade am na nu mu génnee waaye kii fi nekk bëgguma sax tudd tur bi ni mu nar a génnee moom du nekk day loo xam ne ni dina gën ci moom moo tax ñu ngi koy ñaan ne ko qu'il revienne à la raison qu'il sache qu'aujourd'hui am na loo xamante ne nii daana ko def muy jàll mais dootul jàll su suñu ñëwee ci euh, moom la Déthié Fall président Déthié Fall wax sànq sécurité Ousmane président Ousmane Sonko bi mu arrêté te du sécurité président Ousmane Sonko yëpp président Yewwi Askan Wi yëpp la puisque gis nañu comme ni ko président Déthié Fall waxee taxawaay bi nga xam ne nii am nañ ko bi nga xam ne nii ñu ngi nekk ci campagne législative yi protégé wuñu rek président Ousmane Sonko ñëpp la ñu taxawu bépp bépp leader bu nekk ci Yewwi Askan Wi taxawu nañ la ak comme ni ko yeneen sécurité yi aussi defee mais ñooñu c'est parce que li ñu doon bëggoon yëpp def bi ñu convoqué le président Ousmane Sonko te ñu ngi koy fàttali moom président Ousmane Sonko moo insisté à ce qu'il soit convoqué devant le juge parce que épée de Damoclès bi ñu bëgg a teg ci boppam loolu la comprendre te loolu jaaduwul kenn du ko nangu. ñu convoqué pourtant ñoom dañu ne ñooñu dafa am lu ñu def bu ñu jàppee ne ñooñu dafa am lu ñu def loo xam ne nii méngowul ak li loi wax nañu leen convoqué et pourquoi convoqué wuñu leen ñu bàyyi leen ba ñu dem palais de justice. ànd ak le président Ousmane Sonko ñu téye leen jël leen bàyyi te bu ñu bu ñu newoon sax dañu ànd ak président Ousmane Sonko balaa muy wàcc ci oto wala bu ñu nekk ak moom ñu arrêté leen mën nañu wax mais dañu bàyyi ba président Ousmane Sonko dugg ci bureau juge bi ñu yellee ku ñëw kidnappé leen waaw ñun ci ban dëkk lañu nekk sommes-nous dans un état de droit am na loo xamante ni nag dañuy wax ne mag lu mu nangu ñu teg ko ko dagan na waaye ñun askan wi bu ñu nangu Macky Sall continuer di teg lii ci ci suñu ndodd am na loo xamante ni ni mënatul nekk boo demee ci ba sa askan bëggatu la wan nañ la ko ci élection locale yi weesu wanaat la ko ci élection législative nga continuer agrippé wu ci nguur gi nga war a xam ne boo def la attention ni nga nar a génnee nguur gi du neex ci yow moo tax ñu ngi koy wax ne ko Macky Sall ak ñii mu àndal revenez à la raison et puis bu ñu nekkee ci dëkk boo xam ne nii on dit c'est un état de droit régi par des textes est-ce que jaadu na ñu toll fii naan dañuy xaar Macky Sall ndax dina wax ndax dina def troisième mandat ou te textes yi leer nañ loolu jaaduwul du Macky Sall moo war a wax ne dafa war a def troisième mandat textes yi ñoo ko war a wax te textes yi li ñu wax c'est très clair dañu ne moom mënatul def troisième mandat te yàlla li muy def dafa yéeme ba mu demee Qatar ne dafay jox drapeau euh, lion yi gis ngeen mayo bi ñu ko jox numéro 27. di ko fàttali que article 27 de la constitution donc nit la koo xamante ne nii bu fekkee ne am na xel bu astuut xel li ñuy wax euh, euh, discernement su ko amee astuut war na xam ne rien n'est plus avec lui jaww jeeg asamaan seeg suuf seeg askan wi dara àndatul ak moom waaw boo demee ba toll ci situation boobu même boo gëmul yàlla même bu ñu xamee ne sa lépp ci xërëm la mais nga war a xam ne nag ñi bëggatuñ la nga bàyyi joxe léegi loolu nag moo tax ñu def point de presse bi parce que coupe du monde événement la ñun ñëpp dañ ci participer seetaan football bi waaye du tey xeex bi ñuy xeexal askan wi mu dakk amul mi-temps de xeex bi ñuy xeexal askan wi amul mi amul temps mort day jeex tant que demuñu baam am objectif ba atteindre objectif yi nga xam ne ni moom la ñu signé ak askan wi duñu arrêté pour ba ñu guddal le président Ousmane Sonko dina ci ñëwaat loolu ñu ñu amoon pour wax leen ko di leen remercier ci seen teewaay ci seen taxawaay yéen it li ngeen di taxawee askan wi asalaamaaleykum wa rahmatullah